Mbokki salam salaamaaleykum dal leen sur www.igfm.sn tay ñu daldi am mbekté di dalal ko xamanteni ni kenn dootu koo présenté ci euh, Sénégal mu daldi di kangam euh, ci euh, milieu bobu nga xamanteni moy milieu reggae bi di ci bay waaram di rek nak lepp li nga xamanteni da fay soxal askan wi dafa nekk loo xamante ni da ci tek tankam tay ñu daldi am contenté bu baax ba di dalal ki nga xamanteni moy Dread Maxime donc di la dalal bu baax di la wax nga ak internet yi lay yaa jërëjëf déjà euh, maa lay nuyu euh, maa ngi nuyu internet yëpp euh, maa ngi nuyu waa Sénégal maa ngi nuyu waa Afrique maa ngi nuyu waa adduna bi yëpp ñi nga xam ne ñu ngi connecté di leen di ñu seetaan D'accord. donc durant tout ce temps fan nga nekkoon nga ñu drague Drake maximum mm, durant tout ce temps non Drake il était en vadrouille dans la jungle de béton <laughs> comme ni concrete jungle Ah, c'est vrai que Ben instant bon xawoon na absenté chez ci ci scène bi mais devant mon Ben waxtu boo xam dama voyagé dans le lu bëri taal. voyagé woon lu la plupart du temps je suis woon au Sénégal ak ak Europe donc euh, loolu waral. Euh, absence bi quoi. d'accord ñi nga xam reprendre euh, question bi donc je disais tout à l'heure euh, gëj nañ la gis euh, ci lan nga nekkoon donc voyage bi lan moko ko et puis lan nga doon def extérieur. voyage bi en gros pour me résumer ko vite fait xam euh, man reggae man la je fais du reggae euh, et quoi qu'on dise mooy mooy mooy reggae bi doxul Sénégal. Euh, biy doxul Sénégal am na instant boo xamante ni euh, dañu am responsabilité yoo xam ne nekk ci ñun dama am xam ko donc du coup benn instant nii comme reggae bi doxul Sénégal ma j'ai bougé ma def leneen pause parce que xale yi tamit il faut ñu am donc du coup loolu moo waral benn instant ma absenté tout ci ci ci milieu am na raison euh, euh, comme bi may def tamit international la tamit euh, Sénégal donc quoi donc du coup laajoon bouger def xool naka la scène musicale bi mel surtout scène reggae bi mel ci donc ça m'a aussi permis de voyager de de d'encore apprendre de faire d'autres expériences donc voilà

jël décision man ma bëgg ma bëgg def reggae euh, parce que reggae nekk à part musicalité bi musique à part tempo bu nice bu mu am euh, am na benn message bu am doole boo xamante ni ñu dañ ko soxla ci jamono ji dañ ko soxla ci Afrique parce que nootaange bi ak nu mu mënti lu ñu mën lu ñu lu ñu mën a wax rek nootaange baa ngi fi ba léegi mu ngi ci xel yi euh, donc reggae nekk na musique boo xam ne day yeete mais Euh, fii Sénégal euh, nekk na musique boo xamante ni xaw na metti metti dundal quoi ñu dañu dundal reggae bi ñu ngi dundal reggae bi mais xaar nañ tamit euh, comme loolu rek lañ def reggae bi dundal ñu mais quoi que l'on dise bi dese naa dox Sénégal parce que reggae bi dese naa am promotion fii Sénégal dese naa am producteur fii Sénégal des na am structure yoo xam ni yu koy encadrer la pour mu mën dem parce que loo gis muy muy musique muy fu laaj na mu am laaj na structure quoi laaj na promoteur ñun ay euh, musiciens lañu ay chanteurs lañu mais duñu ay organisateurs de spectacle ñu ay organisateurs de festival dañ koy jéem nii rek di ko def parce que dañu bëgg pousse euh, pousse pousse pousse suñu art bi mu jëm kanam mais euh, quoi fii Sénégal manqué na scène reggae amul scène reggae amul scène boo xam ne reggae am manque de promoteur reggae manque na ñu koy pousse donc euh, à un moment donné ñu ni ñuy def suñ kéemtalaay kàttan pour mu pour mu dem mais à un moment donné on se sent un peu vraiment on, on se sent seul quoi par rapport à à, à ça donc euh, euh yoon la tamit euh, ñu ñu ñu bouger quoi parce que ñu ñu ngi ci jàpp mais il faut que tamit Sénégal ñu jàpp ci quoi. Hmm ok donc tey lan solution bi euh, su ma parce que vous faites à part euh, budul euh, émission race Noron bi euh, jàpp naa ne est-ce que am na beneen émission boo xamante ne euh, rek maa ngi leen invité di wax rek. Oh, voilà race Noron amoon na émission émission télé defe naa defe naa. amatu rajo RFM. waaw amoon na télé sax mais dañ ko mujjee dañ ko mujjee cancel am na émission radio mhm. am na suma xarit DJ Idol mu ngi def mu ngi def tamit ci mu ngi def mu ngi def ci benn radio en en ligne donc à part ça à part ça waaw ak ak Titi Titi suñu sista bi bi bi bi de TV. tamit euh, DTV mais à part ça même radio émission radio manque na trop trop trop trop trop te de musique dafa dafa la promotion quoi euh, li ma seetlu euh, dans la sous-région euh, problème boobu Sénégal rek lañ ko am quoi. Mm-hmm. bon boobu boo demee Côte d'Ivoire rajo bi ngi dox foofu bu baax. Euh, boo demee Burkina sax reggae bi mu ngi dox bu baax Gambie fi ñom reggae lañu ñuy mom lañu agné mom ñu quoi tu vois euh, donc euh, bon analyser un problème bi tout dans tous les sens ben instant je me suis dit que peut-être que hmm, peut-être que comme comme message yu reggae bi la plupart du temps c'est en anglais comme une francophone lañu ñu xëy na dama ne soit message bi dese nañ ko comprendre fi Sénégal moo tax reggae bi doxul doxu bu mu war a et puis donc je me suis posé beaucoup de questions Ok, solution yi euh, solution yi bah, c'est clair et net c'est-à-dire que français ah, message effectivement euh, ça a beaucoup changé parce que nous témoignage yi am na ni ñu bëri ñu ne bu ñu commencé déglu reggae sama sama reggae la ñu commencé déglu reggae quoi bu ñu amee ouverture reggae c'est parce que sama musique moo leen ci dugal quoi euh, donc euh, loolu fierté la ci man euh, donc ñu ngi góorgóorlu ci côté boobu. mais comme comme comme reggae bi fu mu sokkee ko ñooñu làkk bu ñuy làkk ak làkk bu ñuy làkk Sénégal wuute na donc du coup des fois message bi lu bëri duñ ko comprendre quoi mais quand Euh, ma ne Côte d'Ivoire du du su ma sensé Côte d'Ivoire ma Côte d'Ivoire du du pays anglophone quoi mm. pourtant ñoom francophone lañu quoi pourtant reggae baa ngi dox euh, ak ak un pays yu à côté quoi euh, mais bu de mes ba ci de mes gis ni peut-être connotation négative bi nga xam ne moom la am ci reggae bi fils Sénégal mu bokk na ci li tax mu mu mu mu quoi bu ko na bokk na ci blocage mais est-ce que yaa ngi ciy nekk di gis sa bopp. di gis sa bopp ci naka fan. xaalis bi di dugg euh, euh, Est-ce que ça a nourri son âme C'est ça que je, viens de te dire, le reggae ne nourrit pas son âme ici au Sénégal. Donc, passion-le. Waouh Passion-le, euh, pour mon contribution-le, contribution ci jamono. Mon yéene laa mon ci jamono pour may def ba may def musique mm. comme yàlla may na ma talent le même talent bi na njëriñ Afrique nañu njëriñ Afrique parce que Afrique dafa mujj dafa yàgg sonn depuis les les ports de l'esclavage au ports du colonialisme euh, à quel nouveau port allons-nous jeter nos amarres nos amarres donc man ñaan partager sama idée yi ma xam yi ma am sama gis-gis ma am ci aduna bi euh, partager ko ak sama ñooñu à travers la musique amna côté divertissement bu nek mais côté bi côté conscientisation bi parce que on a on a besoin d'une jeunesse consciente aujourd'hui pour aider l'Afrique à se développer on a besoin d'une cohésion d'une union pour que l'Afrique puisse aller de l'avant et sortir de ce rouage du colonialisme ou ou ou ou de ou de l'esclavage l'esclavage moderne donc euh, du coup yene y la am mané mm. manière bi utiliser comme musique pour àgg ci objectif boobu mm, mais mm, j'ai fait vingt ans de carrière yoo xamante ni j'ai pratiquement fait que du show show rek laa def parce que amul ma machine business mu nekk ci ginnaaw mm-hmm. mais show bu ñu waxee show biz la ñuy wax show su ñu waxee show la wax biz show bi bu amul business mm-hmm. dina métti pour mu avancer mais business bi bu nekkee moo ëpp show bi trop de business tue le show dootul am dootul am dootul am show quoi am art biir parce que business rek moom mooy am quoi la plupart du temps boo xoolee ci marché bi business bi moo gën a bëri que show bi waaw donc du coup euh, loolu moom ko xamee seetlu naa ko du question ni buggu moon def business c'est dama ko talaloon ay business dama dima tal mooy jaafaaya bi joxe message bi xam nga <laughs> vibe c'est quoi donc euh, instant bi peut-être que nañu jéem a fexe def business bi comme ça ñu mën a yóbbu show bi mu gën a dem jëm kanam d'accord mmh donc euh, euh, France-Afrique mu nekk ay jeunes yoo xamante ni euh, dañu dem défendre les couleurs de l'Afrique ñu ci sax big up ki nga xamante ni Cheikh Fall mu daal di nekk jeune boo xamante ni dafa daal di Afrique donc mu daal di Sénégal franchement ñu ngi koy féliciter bu baax a baax yow nan nga gisee loolu. waaw waaw waaw jot naa gis ay ay ay vidéo yu gën ci internet bi Cheikh Fall waaw ñu ngi koy big up vraiment waxtaan fa wax wax bu rafet. Euh, may big up tamit euh, soxna soosu Burkina mm-hmm. moom tamit wax na fa wax ju rafet wax ju leer wax ju leer nañ euh, initiative bi bon à un moment donné c'est louable quoi mais je pense que c'est de la poudre aux yeux encore une fois quoi sommet sommet Afrique France sommet France Afrique Moi, li ñuy jël di ko dëpp Afrique rencontre au sommet dañu des les gens qui sont au sommet qui se qui se rencontrent déjà mënuñu ko des sommets. Mhm. Hein? Euh, man dama gis ni euh, euh, France dafa commencé baisse, yeneen acteurs yu bees benen benen beneen xeetu doxalin ci relation entre entre entre entre mom ak ak ak Afrique Afrique francophone sax la ñuy wax quoi parce que déjà France Afrique Ça faire rien. quoi France Afrique trop trop trop trop voilà nous, nous, ay Nous nous, ay nous France Afrique occidentale Nous nous, tous, parce que France tout est pour pour convoquer ay te loolu dañ nous, Nous nous, nous, nous convoquer africain nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, une rupture dans la manière de gérer dans la manière de coopérer. une rupture avec ce truc de colonialisme et de paternalisme ñun loolu la ñu bëgg loolu ñu bëgg benn affaire am na mooy euh, euh, li ma li ma li ma seetluwaat mooy euh, sommet bi ay présidents yi ñoo doon daje foofu quoi mais cette fois-ci les ont tous virés la honte c'est la honte c'est la honte Parce que tous ces présidents-là qui sont là, finis, la plupart sont que des valets de la France qui appliquent leur politique. Bon, les deux cabines, nous, nous, deux à mon avancé. Euh, économie, oui, du côté, ça. fuite de capitaux il dafa bëri capitaux yi nga xam ne ñoo ngi y a surtout yaa ngi rebondir sax sama question parce que c'était euh, euh, gestion pays avancement ou recul. recul. moi j'ai senti de de, de de la reculade de la grosse reculade même mm. j'ai senti la misère boo xoolee boo ñëwee ci dëkk bi da gis ndóol bi encore dafa gën a yokku boo xoolee boo xoolee dëkk bi mu mel bu doo sentir ni am na leneen lu lu lu am am na lu fi nekk lu bees quoi naataange bi doo ko sentir te pourtant te pourtant ñu ngi leb rek ñu ngi leb rek boo demee ci hôpital yi c'est la même chose ah galère bi soo duggee ci am na dëkk yo xam ne sax amuñu dispensaire boobu ba légui am na dëkk yoo xam amuñu courant bo ba légui hein ndol bi mu ngi mu ngi dafa gëna a agression bi dafa gëna gëna gëna gëna gëna a cambriolage yi tourner ñu né la dañu cambrioler lu tax mu demee noonu c'est parce que c'est parce que c'est parce que ndol bi mo metti parce que am ben borom xam-xam bu doon wax mu né quand l'économie de la cité est étouffée de tous côtés alors règne la misère et la pauvreté dans la cité quand une minorité de courtisans se glorifie dans la richesse dès lors les gens font n'importe quoi pour survivre vol brigandage agression et corruption s'installent. La société est divisée, il n'y a plus de sécurité. Et quand les forces de l'ordre ne servent que les intérêts des autorités, alors là, disons que c'est la cata. Et ça, ce sont des signes de révolution euh, qui, qui s'annoncent. D'accord. Lan le tax euh, tay jii euh, nga daal choisir nga mooy musique pour moyen de communication pour wax nga population. L'art en général, la musique en particulier, n'est pas un but en soi. C'est-à-dire que le but, c'est pas de faire de la musique. Le but, c'est pas de, faire de la musique. La musique est un moyen. c'est pour man tu du buñ ci divertissement bi dois rek dafa war Il faut un moyen pour but bi mooy yeete mm. but bi comme ni man adonobi, bi dama ko gis comme kër goo xam ñu gis kër gu kër goo xam ne dañ koy tabax ku nekk am nga sa mool boo xam ne moom ngay indi man am naa sama benn brique wala sama ñaari brique wala ñetti brique ma teg pour donc pour moi, c'est un moyen puissant la musique c'est un moyen puissant euh, pour faire véhiculer euh, message parce que dafa daf ko def man musique Peter Tosh musique Aja musique Bob Marley musique Lucky Dubé musique Alpha Blondy musique Bonnie Pierre Bonne am xam def man dafa am lu positif lu rafet loo xam ne def na ko ci man ma sama conscience ma sama xel gën a ubbeeku ci àdduna euh, ma gën a am fierté ci sama bopp waaw musique boobu moom ko moom musique moom moo ko def ci man moo def moo moo def man ma nekk combattant moo def ma nekk rebelle tamit musique moom donc pour man musique boobu dafa am njëriñ parce que ñun dafa am njëriñ ci doomu aadama parce que musique boobu fu mu fu mu sokkeekoo moo moo moo moo am doole parce que c'est c'est le reggae c'est une musique qui est de la souffrance des peuples nga xam ne ñoom dañ leen leen jógee fii Africa ñu déporté leen yóbbu leen en esclavage ba ñu am seen liberté di ñu ñu woy pour seen liberté jooyu xoy xol la boobu donc pour man musique tamit dafa am dafa am dafa am puissance musique aussi des fois je le dis euh, c'est le gardien de la comme gardien de la mémoire là mm. parce que bout de dégloo musique bi nga bi nga bi nga bi avant période bi nga ko déglu ak situation bi nga ko dégloo soo ko dégluwaatee dix ans après dafa mel ne dafay fàttali yenn souvenir yu yu rafet daal donc du coup euh, loolu moo tax ma utiliser musique pour euh, muy mu doon sama sama sama arme sama sama sama lépp quoi. d'accord mm-hmm. donc lan mooy sa objectif euh, à travers ta musique. mooy wax naa ko léegi mooy mm-hmm. conscientiser mooy partager mes partager ma manière de voir le monde ma manière de voir la vie aider à ce que l'humain le monde euh, évolue en conscience, hein, euh, faire promouvoir euh, la paix, promouvoir l'unité, promouvoir la solidarité, et promouvoir la justice et la liberté. lolu mon sama objectif Je xam mom moom ñu bëgg inshallah li ci li ci des mom bu objectif bu mag Africa am am liberté ñu bàyyi ñu loolu combat la Occident bi ak bi am monde yëpp ñu bàyyi ñu tout tranquille ñu jox ñu cër mais jox cër cër bi nag dañ koy joxante suñu la balaa nga jox balaa ñu laa jox cër il faut que yow nga jox sa bopp cër ba pare il faut que suñ Afrique ñu li commencé jox suñu bopp cer di bàyyi di dem ay France naan nañu def ay sommet woo ñoom bu ñu bëggee. d'accord ci man d'accord ma ci d'accord ma ci. non kooku dafa rus loolu kooku mel ni que chaque fois nit ñooy taxaw fële rek woote ah, ñoom foo nga some sommet sommet Fra lu tax ñu sommet sommet wu ñu sommet dafa ay sommet am amul benn njëriñ wax ji ñu wax wax nañ fa xale wax nañ fa wax ju rafet vraiment vraiment d'accord naa seen ci ci wax bu ñu fa wax jooy nañ fa jooy xol bi léegi nañu mettre en application loolu ñu bàyyi di comploter di di dugal di teg ay président dictateur partout ici pour défendre leurs intérêts nañ ko bàyyi di protéger ay président du devenir nii di euh, d'accord di valider ay troisième mandat yo xamni fi fii nañ ni yooyu yëpp dafa wara jeex. waxuma sax Sénégal hein? troisième mandat boo amee Sénégal noy def. man ah. troisième mandat boo amee Sénégal noy def. non dina dinaa rus rab damay rus. ne doo wàcc xeex. ah doo wàcc si mbedd. non troisième mandat xoolal ko man yaakaar naa euh monsieur le président yaakaar naa ne loolu moom mën na ko bañ xalaat quoi man nako baña bañ xalaat parce que.

Afrique Afrique waxuma Sénégal sax Afrique ci wàllu boppam dina dina jóg table is turning Sénégal émergent yooyu yëpp de yooyu yëpp dañ dañu am mais ak à des à condition à des conditions à condition c'est-à-dire wàllu géopolitique am na am na nombre de population boo xam ne boo leen ko nekkee du doyul pour pour pour sukkali ay ay bagages il faut ngeen ngeen ngeen am benn nombre peuple ngeen nekk boolo boole seen seen doole pour mën a su pour mën a survivre pour mën a survivre ba ñuy kuppati di dagati Afrique ca jamono yooyu jamono colonisation bi noonu am na dëkk yoo xam ne mi am mais na yeneen dëkk yu mënul nekk dëkk yoo xam ne ay ville ville la sax ville la te yooyu ci amuñu duñu am capacité euh, maanaam côté humain côté côté xel côté cerveau ak côté côté kii alal ji nekk ressources yi nekk ci suuf di léeg-léeg du doy pour ñu mën am jàmm il faut ñu maanaam du pays yi nekk euh, euh, surtout pays euh, francophone yi toujours déjà ñu ñu ñëpp ñu boole am benn armée en commun am benn économie en en Euh, et puis et puis et puis euh, monétaire bi ñu am <laughs> ñu fexe bu am indépendance euh, monétaire souveraineté parce que loolu yëpp amuñu ko loolu nak pour ñu am ko il faut ñu bolé tolé bolé dolé mais amna naa yaakaar ne amna naa pasti pasteur bi amna naa yéene bi ni Afrique bés dina ñëw dina nekk lu mu war a nekk ci kanamu àdduna bi te loolu lay nekk inshallah inshallah incha allah lan mooy mhm. say projet. Euh, projet à court terme euh, mooy euh, sortie album bëgg naa génne benn album ni album boobu waroon a génn depuis daaw mais affaire ko Covid bi moo gënoon gënoon bloqué affaire yi parce que depuis daaw Covid 19 bi fin 19 bi la ñëw duggu jaxase bagage yi. mais dañu santé à rek euh, donc euh, boobu bëggoon naa un album euh, après comme damay. defoon est-ce que va nga ñëwaat ce titre album bi les thèmes développés. Non, mm, bref brièvement mën naa wax ni double album dans un album. pourquoi parce que on naa def un album bu Jafaya 2.0 upgrade maanaam am quelques sons yi nga xam ne nit ñi bëggoon nañ ko amé woon nañ ko dañ koy rééditer ré ré remise à jour dañ koy damay def benn mise à jour euh, pour upgrade ko pour mu mën a disponible aussi ci yenn plateforme yi quoi boo xoolee boo xoolee ba xool euh, sama musique yi benn nekkul ci benn plateforme de distribution donc euh, kooku premièrement et deuxièmement dina am benn album bi album bu ak titre yu bees yi bu tudd Soulja soldier of Jah Army euh, bo xamni ne ko maa koy ko dédié spécialement à sama ben sama ben frère sama ben bro bo xamni il nous a quitté un peu tôt l'année dernière bo xamni il faisait partie de mon staff il bossait beaucoup pour moi ndeysaan yalla jël ko te mu gaaw trop mu xaw bettee trop ñaan yalla xarit ko aljana ba album bobu hommage hommage la pour pour moi pour mon défunt frère, Roger Donc, euh, voilà, en gros, et puis de la joie. vois, euh, bah, comme, euh, comme d'habitude, comme d'habitude, comme euh, d'habitude, le patrimoine dilapidé, déjà, comme, comme le même nom. Hum. Notre patrimoine culturel, intellectuel, moral, qui est en train d'être dilapidé. L'aspect des libertés. dinaa ci wax waaw ak euh, dinaa ci dinaa dinaa ci woy tamit euh, am na woy boo xam ne maa ngi koy woy euh, caaray 44 pour fàttali li xewoon mhm. mm, dinaa ci woy mbëggeel tamit waaw pas vrai version bi ni ñuy <laughs> bi gars yi di woy souvent mais dañuy dëpp carte gi rek mais lu ma ci sori lu bëri mais de découvrir sa Euh, dernier mot, dernier mot, dernier mot, xanaa may big up du nuyu ñëpp vraiment au Sénégal je nuyu fans yi ñoom di leen wax ne namon na leen trop ça faisait longtemps vous m'avez manqué aussi euh, j'ai vu tous les témoignages et tous les soutiens par rapport à tout ça euh, di leen remercier pour nous. di leen wax ni Dreadmax is back again for real di wax sénégalais yi ñu muñ ñu muñ xam naa moom di ci des yàggatul di ci des yàggatul ñu mën a gérer dëgg bi nuñ ko war a gérer dafa yóbbu nice. incha allah. yeah. mbokk internet IGF. may ñu benn freestyle sax. benn freestyle. xanaa ma def lastikool kii bi. ok lastikoolu hymne bi hymne bi. d'accord. Ben Africa Jason will rise again a new day will come again un autre jour un autre combat un nouvel espoir. Jason will rise again. A new day will come again. Un autre jour, un autre combat un nouvel espoir. Yes, I. <laughs> vous présente je le remercier de invitation de le big up du nouveau IGF FM Yep, vraiment de leen sant de leen siyaar jaajëf mbokk internet IGFM ñong ngi leen di jaajëfal ñu ngi nekkoon ak eh, ki nga xamante ni eh, mooy Drek eh, Maxime di leen jox dig daje ba beneen ak keneen merci beaucoup